heure bii daaw dama seeti woon samay mbokk Sénégal dama ñëwee Sénégal ba ñibbi daanaka trois mois quatre mois yëpp maa ngi woon ci jàmm après loolu ba léegi amatuma jàmm fu ma toog damay dem su ma dajalee xaalis ba yor ko rek damay dem boo ma demee foofu ba sama xaalis jeex ma xool feneen fu ma demaat man daal maanaam du ma toog te maa ngi sëy am naa borom kër sama borom kër defuma waxuma nit ku baax la lii nag mosuma dal bi ma seet see samay mbokk ba ñibbi la la ma commencé arrivé te léegi daf maa gën a ëpp doole daf maa gën a gën a gën a gën a ëpp doole nag jaaxle naa jaaxle naa trop trop trop trop ku ma mën a jàppale te yàlla tax na soutien de famille gannaaw yàlla guleen ci bi maa jàppale sama famille ma am ñoom ñoo tax suma ma sonn nit ñoom ñoo tax te ma nekk jigéen te am na yu bëri yoo xam ne gannaaw yàlla guleen ci bi yàlla nga ci suturaat lii lu ndax dama mës a waxtaan ak sama biir siwat mu ne ma man de dama gént benn gént bu ma jaaxal te yow la sur le champ bi ma ko waxee comme man dama doon nit koo xam ne yàlla mi ma tiim xam na ne samay lépp moom laa ci jiital lii bu ëppal woon la fa nii nii nii du ma mës a ñëw di ko wax gannaaw yàlla laa doon nit bi moom laa jiital ci samay rek xaw ma doon jàpp julli tal sama yàlla ooy te xëy na yàlla dama ser boobu moom ma mës wax ne ma diw ma ko naar mu ne man dama gént gént boo xam ne te yow la te comme man boroomu kii laa du ma gént daanaka dañ may wan tey ngaa jukki sa bopp gën a defarwaat maa reetaan dañ noppi bi ma koy wax ndaw ma ko woon ma demee ba affaire yi sonal ma laa ko di waxtaan ak moom si la may wax fàttali kon waxoon naa la waxoon naa la na jukki sa bopp waxoon naa la nga taxaw ci sa bopp bu baax a baax mais yow gëmoo woon lu bëree bëree bëree bëri jigéen laa damay sëy te yàlla wërsëgalee na ma jëkkër ju baax macha allah toog ci sama sëy bii ak toog sama liggéey gii ma nekkoon moo ma gënal bëgguma leneen may ñaan ñi nga xam ne ay kilifa diine la ñëw yàlla may leen xam-xam ku ma ci mën a jàppale te yàlla tax ku ma ci mën a ku ma ci mën a jàppale te yàlla tax tey li ma doon jàppale sama famille li ma leen daan jox gannaaw yàlla ko leen ci bi li ma leen joxee nii denc neen denc sax xaaratu ko fi léegi moom lu ma denc rek mooy voyage naa ko jaabante naa di wër fi ngay dem xamoo fa kenn di dem fi ngay dem xamoo la fa yóbbu li ma nekk xane xam ne trente ans sax amaguma ko loolu noonu ma gën a tiitan pour ma gën ci lay jóg balaa ma maa ëpp loxo ndax lii jaaxal na mu jaaxal na mu trop su ma dajalee ba am sama xaalis paas dem benn dëkk toog bu ma jógee foofu dajalewaat demaat feneen du ma fa def dara du ma fa xam kenn dara du ma yóbbu dara du ma yóbbu di ma xam fenn kenn damay dem nii rek di dox rek bëgg di jot. ba tëdd ci nelaw jógaat dof ba guddi jot ma ñëwaat ba pare nag maa ngi sëy sama sëy bi bëggatuma fi dara dara dara dara te sama jëkkër ji defu ma waxu ma au contraire sama tollu daf may appuyé mu gisee ne maa ngi bëgg dañ sama ndaw din caabi denc ndaxtaan nañ man waxtaan na woon ba ma dal ba toog ba yaakaar ne maa ci nekk bu nelawee yaakaar ne man fàtte naa affaire dem bi rek ma jàpp julli nekkaat. lu waay ren de Moi xaar def jëf ju ñaaw ji son si si dafa nekk benn faatu faatu bu jóge bitim Sénégal di vacances yi si vacances am bii mujj dañ ko yóbbu si sëriñ sëriñ googu am ben affaire bu def Simon, moom si depuis ba mu ñibbee ba léegi nii muntu fa je ge les dem lui fin de def jëf ju ñaaw jooju noonu dafa am ben sëram bu ko xamal que dafa am ben lum ko kisal mu daal ne koy avertir parce que dafa am ci ay mbokkam ñoo xamante ne yéenewuñu ko lu baax dinañ def seen kémt lay pour daal di ferel, fexel yàqal ko àddunam waaye Mélanie ñoo ñoo ngi bëgg am dëgg parce que depuis un moment son nazi mëntu toog si jëkkëram jëkkër di da ko lol, lool mun tamit bëgg jëkkëram waaye xaftal buñ ko xaftal moo tax mëntu toog benn yoon foofu mu nekk saay su ne saay su amee xaalis Sénégal yàq xaalis wi d'adi di delluwaat te su delluwaatee du toog wi yàgg daal di ñëwaat moom daal miru nag nekk na lu doy waar taxi moo ngi interpellé képp koo xamante ne am na capacité pour dimbali ko mu génne si situation bi ni parce que sonn na ragal na mariage am yaaxu addinam yaaxu te ñu war a mën a posé wu la question ana nan la mën a defee jëf du ñaaw yi moo kam ñoo ngi leen di laaj seen xalaat si mbir mi la moo war a mën a doon solution bi question yooyu noonu dañu bàyyi ngeen tontu ko